waaw ñu ngi koy waajal. Mm-hmm. <laughs> di ko waajal bu baax a baax avec beaucoup de sérénité. comme ni ko candidat yeneen ñi di waajale mm-hmm. eh, xëy na peut-être eh, la seule différence que mooy eh, on on n'est pas trop dans les. Ah. dans les médias. Mm-hmm. voilà si loolu la mooy lu ñu gëm ndax réew ku ko bëgg a yor du doo topp si télé rek. Mm. déedéet. mais bu ngeen communiqué est ah, mais bu ñu communiqué nga jàpp ni parrainage nu ñu ko amee nga jàpp. nga hmm. jàpp télé yi ko joxe ana ñu nekkoon sélé di wax fii am na ñu fi nekkoon sélé di wax de di ràjji ràjji rek. <laughs> bëri nañ ci de bu mbir mi jotee bëri nañ ci de. <laughs> si li yow. dafa jotewul dara dafa jotewul dara gis nga politique boobu ancienne politique boobu nañ ko bàyyi. indi mais ci fi ñu toll nii quand même. mais non moo tax ma nekk vous allez dérouler. moo tax mu ñëw waaw kay moo tax mu ñëw bëgg nañ ñu xam. waaw niroo ngeen waa réew mi de. waaw ñoom Idrissa Seck niroo ngeen waa réew mi de. ñun ñoom léegi la ñu doog commencé di wax quoi ñoom. ah non yàlla xam ne ñun de wax dëgg yàlla ñun réew mi sax man fàtte woon naa man fàtte woon sax fàtte woon naa réew mi ah professeur Dada Ndiaye non il ah, ah, doomu Pikine la ah, voilà banlieue la nekk te aussi mu doon ki nga xam ne vraiment euh, mu connaître benn enfance bu difficile mais yàlla def aussi njàmbaaram vraiment mm. ak xam-xamum ak ndimbalu yàlla aussi mu def ko tey lu mu ko def ok donc euh, ñu ngi en tout cas appeler euh, les sénégalais en tout cas euh, ñu leen di woo ñu ñu voté ñu massivement xaw ma nag li may wax ndax c' est. c'est pas autorisé waaw propagande maa ngi maa ngi boo xoolaat la maa ngi si tuub boobu xam naa waa Sénégal dinañ leen ko may. Mm. ça c' est ça ça m' mm. passe-passe bi la. mais li ñu am solo mooy on est dans une phase de stratégie de massification. et on est en train aussi de faire euh, euh, li ñu war a def si diggante ak yoon lu ñu may. Mhm. mooy plénipotentiaire ñu ngi déposer au niveau des euh, dans okay. les bureaux de vote. Mm -hmm. mais li ñu bëgg mooy aujourd'hui un Sénégal différent parce que lu ñu parce que wax dëgg yàlla man sañ maa taxaw ma ne dama bëgg un Sénégal de continuité. <laughs> parce que suñu ne continuité on parle de souffrance. on ah parle Sénégal d'injustice. loolu moom yaa ko moom de. on parle on parle on parle vraiment de de de beaucoup de régression si yi nga xam ne jot nañ ko def mais nag dañ leen di nangul ne am na li nga xam ne aussi jot nañ ko def ñoom c'est du positif. Hmm. parce que nag euh, aussi ñun dañ ñëw avec une autre manière de faire la politique. on n'est hmm. pas venu aujourd'hui pour dire que tout est mauvais déedéet yàlla def. déedéet déedéet. Hmm. am na li nga xam ne jàpp nañ ni. Euh, mënoon naa gën a gën a yemb mënoon naa gën a baax. Mm-hmm. dañu jàpp ni suñu xel ak suñu xalaat may nañu ko suñu relation may nañu ko donc moo taxoon ci parti yooyu noonu en tout cas notamment su dédication ah ci wàllu économie euh, ci wàllu santé. defe naa santé moom dinañ ci accentué wu. waaw dinañ ci accentué wu incha allah damay bañ nga dugg ci biir programme bi ko waaw non non y' a problème dugguma ci programme bi mais en en quelque sorte. Mm. Euh, en tout cas ñu ngi liggéey ci base bi liggéey bu am solo. ok bu am solo ñu ngi en tout cas dem ci dëkk dëkkaan yi di waxtaan ak ñoom te xam nga aussi ñun huit ans mi ngi nii ñu ngi sur le terrain. Mm. donc su ne nee suñu nañ jël réew ñu gëm ko. Ah, kon baax na at.